nee xam te mooy jëm voilà xam nga suñu jigéen la mais ñàkkul fayda ndax ki daaw wees xam ko muy Sonko moom lañ posé ay question mu ne duma tontu ndax yow procureur complot bi yaa ci biir man mu ne dama koy yàpp dama koy attaqué du tontu samay question ñu soog a ñëw ci aji Sarr euh, ñoom ñu bëgg ko mu répondre procureur répondre juge bi mais avocat yi Sonko mu ne dama leen tontu doqam seen waa ji nanguwul tontu kenn ëpp leen ñu fulla seen waa ji moo njëkk a commencé bañ a tontu bu fekkee ne avocat Sonko bañ a tontu avocat aji Sarr bañ a tontu procureur pourquoi suñu client ni ñàkk fay la di tontu Sonko di tontu avocat Sonko yi alors que moom tontu na suñu Adji Sarr tontu na procureur tontu na juge bi donc li ñu bëgg daal ñu ngi manipuler opinion bi naan Adji Sarr dafa am malaise naan PV d'enquête préliminaire bi day dafa réer ku ko réeral eh, dañoo lu la amul sens c'est-à-dire gars yi ci manipulation la ñuy wéy ci nax nit ñi rek. est-ce que mën nañu ko man du ma wax ci affaire yi secret de l'instruction yooyu du ma ci wax ñoom ñoom nañu wax ci biir mais man du ma xuus ci secret de l'instruction man daal li ma leen wax mooy man du ma dugg ci dossier bi li ma leen mën a wax li ma yoon may mooy wax leen rek d'accord bi. ñi bañ a tontu li tax Sonko tontuwul moo tax Adji Sarr tudd preuve en tout preuve moom du ko génne ci presse bi aw ma droit wax leen dara dara dara ci preuve yi aw ma droit wax leen dara dara ci ay secret de l'instruction mbégte bu rëy laa ci am parce que magum jëmm bu fekkee ni nañ koy laaj bu dee tontuwul procureur du ma la tontu ndax ngay complot ci complot bi nga bokk loolu mooy waxee lan yow avocat bi du ma la tontu parce que nangam nangam jubawuñu est que loolu lañ dëkk ci moom xale bu jigéen bi tontu na procureur ba mu jeex tontu juge bi du dëgg tontu tontu avocat am ay avocat léegi nag comme moom nangul tontu avocat ay euh, du tontu ay avocat am loolu de fa am kon confrontation daanaka amul ndax ndax ndax ndax déet déet ñaar bi jigéen mu ne ah comme moom nangul tontu ay samay avocat man ñàkk naa fay di tontu ay avocat voilà. waaw ku nekk bu la neexee nga nekk asamaan di nekk euh, daal sa kaw wala nga nekk weer wi bu nekk mën nga wax lu la neex waaye waaye waaye waaye ku sa xel dal xanaa mooy aji saar moom mi nga xam ni ndeysaan seen ko amul lu muy ragal day tontu waaye bu ñu ne yow lii nag nga ne du wal tontu ah, yow yow procureur ci complot nga bokk ah yow yow avocat Adji Sarr du ma la doon ndax yow da nga ma yàq yàqalu ne xamee loolu mooy réponse koo xam yow yow lañ topp yow yaa nekk yow yaa am ay yow ko yaa war a indi expliqué raxas raxas sa der dama ni dossier moom du ma ci wax li ci biir yëpp li ci dëgëñ du ma ko tudd mais loolu da dossier foofu dossier bi du ngeen ci xam dara bu dee man la mais li ma leen daal mooy mooy presse bi du fii la ñuy plaider du fii la ñuy génne dossier yi dossier bi mu ci biir dossier ba. ah loolu loolu xaw ma ci dara. loolu loolu xaw ma ci dara loolu loolu. xaw ma ci dara man daal dossier dossier viol laa dégg dégguma dossier grossesse ñun daal dossier viol lañ am bu amuñ dossier grossesse donc man duma wax ci loolu man kenn du ma divertir robe rouge la couleur rouge de Adji Sarr est-ce que am na Sarr lan ngeen lan ngeen ah xëy na code la lu ma ci xam eh!